asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant ak tamit euh, képp ku may déglu maa ngi tudd Bari du nekk médiateur linguistique culturel bu coopérative di Morata Braham dama enregistré waat message bu bees bi pour yëgal leen xamal leen que ni euh, euh, du ay fo du ay caaxaan mais ñu ngi tere daal bépp nit bu bu génn si si këram ñu ngi ñaan ñëpp toog seen kër di di leen xamal ni que ni carrément ñu ngi nangul. nit yi ñu a génn comme tey jii nii bu demee bu demee ba ñu gis ni kan carrément mënul ñàkk comprendre ngeen comme mënul ñàkk nii comme ni ki war a dem liggéey te loolu tamit comme ni ko doon waxee si nga yóbbu que ni sa contrat xam nga loo xamante ni daal day prouver day prouver ni kan yow mi da ngay dem liggéey wala comme tey jii nga war a dem euh, si laptaan bi nga am ay rendez-vous foofu noonu xam nga pour dem seeti ji sa wér-gu-yaram wala comme nga war a dem comme jënd ci lekk nii waaw côté si euh, cas yooyu noonu nangul leen la nga dem soo paree tamit nga delluwaat sa kër waaw di leen euh, yégal ni nag tamit euh, xam leen nag affaire bi du ay caaxaan quoi ñu ngi leen di wax que ni euh, képp koo xamante ni ñu ngi tere nag ñu ngi tere lañu wax ñu ngi tere carrément koo xamante ne moom maanaam euh, yóbbuloo yóbbu woon nañ ko fu euh, nit yi feebar yi nekk comme tey jii nii ñoom bu njëkk ñi seet la gis ni que ni carrément am suspect que ni yow war ngaa mun a am feebar ñu jël la yóbbu si quarantaine xool du même si ñu gis ñàkk gis yow tamit euh, bokkoon nga si ñu ñu yóbbu woon après une fois ñi libéré la yóbbu la gàlle yow ñu ngi lay tere carrément nga génn comprendre nga maanaam waroo comme génn sa kër nii parce que tamit wóorul tamit. su weesoo loolu tamit mu ngi leen di xamal ni que ni carrément daal euh, képp koo xamante ni képp koo xamante ni euh, génn na këram te euh, dem dugg ci dem jënd yi lekk dem liggéey wala dem dem si hôpital pour seeti yaramam loolu moo ko tax a jóg bu ko tax a jóg mooy comme dem doxantu ji wala dem feneen kooku noonu mu ne bu ko gaay bu ko gaay bu gaay dajeek moom mun nañ ko jox mun na euh, tëdd ba ñetti weer ci kaso fay amende bu deux cent six euros fay amende bu deux cent six euros comme gars yi affaire yi nekkul ay caaxaan waaw ndax booy génnee di doxantu ni ñi ñi euh, dajak yow jàpp la ñi gis ne kenn carrément wala ñu yëg ne kenn carrément demoo nduggi demoo euh, liggéeyi demoo laftaan da nga génn pour doxantu xëy na comme ni nga koy pour féexal sa xol loolu noonu mun nga si risqué ba ñetti weer prison ak deux cent six amende parce que affaire tamit du ay faux waaw képp koo xamante ne nag moom jël nañ ko ñu yóbbu ko euh, quarantaine maanaam ñu yóbbu ko euh, fu nit ñi euh, feebar nekk mu jékki-jékki génn te kenn diggalu ko ko mu génn dem yoonam kooku noonu mun naa risquer ba douze ans de prison parce que mooy wane ni que moom moo ñu mettre en risque wér-gu-yaram nit ñi waaw donc loolu laa leen doon expliquer di wax nii daal yal nañ si yàlla musal c'était pour euh, xamal leen yëgal leen que ni carrément daal affaire yi moom du ay foo waaye daal euh, jot naa bàyyi xel bu baax a baax te yaakaaruma comme génn doxantu jar na nga tëdd ñetti weer kaso fay 206 mu mun donc euh, loolu la rek jërëjëf.